Macky Sall man duma la ñaan tus dara laa la dul ñaan doo nitug dara ba ñu fi jëlee Abdoulaye Wade dañoo yaakaar ni boo dikkee di nga saafara Abdoulaye Wade tëj nañu ko téeméer yoon fukk ak juróom-ñaar tëj nañu ko ba sonn te teewul mu nekk paris de la yàlla tudd ci nit ki kenn mënu koo faj boo toogoon yàlla tudd ni di nga nekk président danga koy nekk waaye yow de jëroo dara yëroo dara ñëpp a réccu luñ la doon fale ñëpp a réccu luñ doon fale ñuy wax ay xale lañu ñuy geer ay xale la nun mag ñi sonn nañu ndox dund bi seer na ceeb seer na dëwlin seer na suukar seer na saabu seer na tout seer na poti tamaate boo daan jënde mille francs tey deux mille francs nga koy jënde cinq mille francs mënatula dem marché man dematuma marché waaye deux cents laa daan yóbbu marché ca jamonoy Senghor indépendance fii la ma fekk booba maa ngi war a am ñaar fukki at man mi wax ak yow maa ngi sama juróom ñetti fukki at mun a fi jaar ñëpp yaa ci gën a bon baaxoo te mosoo baax te doo baax mukk yow Macky Sall nit day am yërmande am xolub jullit amoo ci dara dara nga ci amul dara nga ci amul xale bu mu doon na ko leer ni duutu am am na ñoo xam ne salaire cinquante mille francs yi ñuy wax sax amuñu ko loolu tax marché ambulant yi bari ak bitigi jàmbur yi ñuy toj di jël di yóbbu seen xaalis kanti ngi jàmbur yi ñuy déqati di yóbbu seen i xaalis barki démb dong lañ dem Sandaga ñu tàllal seen boyetu kondaa yi ñu daan réserver seen i deux cent francs ak i ñeent fukk ñooñu amuñuy salaire Macky Sall moo bokk jox ñépp saleer waaye waroo mën a boole ñépp nag di xeex ak ñoom senegal ay jullit a fi ne ak i chrétien waa kër Esa waa kër Sidina Mohamed dong ñoo fi nekk bokkoo ci fenn nag yow boolewuma la ca dem man man mii man duma sedd ne fenn nga bokk ndax foofu bokkoon tey am xolu biir day doomu aadama yi yërëmoo kenn te doo yërëm kenn ci nii rek ngay dund te ci ni nga fi joge allahu yalla buur bi nga xamne moy borom lepp lépp fi jele nit ñi na la leer ni la du ñak bis bi mu la fi jele mu na man ko ñu jël sa bakkan bi rënkal la ko ci suuf nga gisee sa borom di nga wéet ak ba melni yow rek la bind Macky Sall amal yermande ma nga ci sama juroom ñett fukki at kon xam nga ni man duma gune damaa ànd ci sengo ndax bañu ak indépendance maa ngi fi Senghor nekkagu fi booba Lamine Gueye fi nekkoon ak Senghor di xëccoo ba Ablaye ba ba Ablaye Wade di ñëw ñu toog ay at yu baree baree baree baree bari Ablaye Wade di ñëw ba Ablaye Wade di ñëwee ah xam ni moom mujj yaa ci toog Senghor def na lu rafet jóge fi ab Abdou Diouf def na lu rafet jóge fi tëj nañu lay Wade lu baree baree baree waaye ba mu dikkee li ma lay xamal nag mooy lan danga noon ca Abdoulaye Wade ñaari màndaa du fi am léegi nag yow sa ñaari mandat jeex na dangay wax waxeet wala dangay dangay dangay dangay multiplier nit ñi wala dangay lal ba sañ ci kaw nit ñi di nappaaje yàllaa la dàq nappaaje napaji ngay na napaji sénégalais yalla la dàq napaaje te wallahi bis wo teree fa mom dina la napaaje